bismillaahi rahmaani maa ngi nuyu bokki jullit yi nuy déglu maa ngi nuyu njabootu Seydina Limaamu di nuyu njabootu Seydina Isaa Ruuhu Laay maa ngi nuyu sama waajur yi maa ngi nuyu bokki jullit yépp di nuyu Kàmbareen ak ak fépp fu ab jullit nekk maa ngi lay siyaar ah waxtaan ak yéen ci góor gi njoogu njaay moom nga xam ni dafa fekki woon bàyyi laay ca yoof bu mu fekkee limaamu ca yoof ah waxtaan ak moom ni ko dama dégg sa woote ma ñëwoon nag di la seet si maam bàyyi laay ni ko waaw loolu loo ci xam mu ni ko yow yaay rasulullaay ba mu delloo gànjool nag moom mu ngi dëkkoon ci dëkk bu ñuy dëkk bu rëy ci gànjool dëkk bu rëy la dëkk ci gànjool mm-hmm. léegi ba mu fa delloo nag la daal di ramaase ay bagaasam jël ay soxnaam ak ay doomam indi leen bi mu fii ñëw ñaari doom la àndal yu góor ni ki libaas njaay ak mag laay njaay xari caw njaay ginnaaw gi la leen jëli waaye ci wuy ñooñu la àndal ñooñu la jëli indi leen ànd ak ñoom ñëw ba ci màmbaay laay ginnaaw gi nag bàyyi laay moo soppitu mag laay tudde ka màgget laay tudde ka magum laayeen dinañu koy woye mag laay ñetti tur yooyu maa ko ko tudde màgget laay magum laayeen ak mag laay ak mag laay njaay waaye nag nañu koy woye mag laay tur woowu bàyyi laay moo ko ko tudde waa kay waaye njuugu ci boppam waajuram woowu bi nga feebar bi duggee booba ñu nga ca kàmbarin bu jëkk ga ca gent ba fa ndinga la ne foofu la ko feebar bi dugg taxawul yàlla dal di koy jël moom moo jëkk faatu ci peste boobu bi mu ko jëlee nag bi peste bi demee ba nga xam ni déegi metti na daanaka li fi des bariwul commandant dafa ñëw ni ka léegi dama bëgg yow Seydina Isa nga abal ma dëkk bi ngeen dëkk te ku fi feebar rek dee ngeen dem seeti fu ngeen dëkk ma maam Seydina Isa wax ka ni ka loolu day laay may naa la ko waaye dama bëggoon yow nga may ma feeg ñetti fan ma seet fu ma dëkk commandant ni ah loolu d'accord naa ci ginnaaw d'accord nga ci jóge d'accord naa ci yow it nga wuti foo dëkk mu daal di xëy bi commandant demee mu daal di waxtaan ak taalibe mi nga xam ne ñoo gën a sës ci moom muy ilimaan Momadou Wade ak Sibori Diop ak góor gi mag laay ak libaas jonn àlli woon ak libaas fatimata ni leen dama bëgg ñu dem ak Seyna Mandione ñu dem wëri Cambérène daal di war façon woowu ñuy wax mantulaay jóge ndigal la fas yuy jaabal di jaabal ba yegg si fii fii jumaay Cambérène ne ba nga xamee ni agsi nañu foofu maam Seyna Issa dafa daal di wàcc daal di fa mantulaay téye ka taxaw ci wetam daal ni taalibe yi gor leen fii ñu def ko jullikaay ñu daldi di ñooñu mu àndal ñoo futtiku ñoom juróom benn ñooñu ak Seyna Mandione ñoo gor silaan bi ak ak xaaxaam bi lu fi nekkoon ñoo ko falang dindi bi ñu ko dindee ba mu set góor ña nekk waxambaane yaag ñépp ñu daldi di wàcc dem ni leen maam Seyna Isaa la des di leen xaar ñu ñëw andi néegu ñax bi nga xam ni moom lañu euh, fi la sama baay finaan naan moom lañu daal di andi defar ka bale foofu lay ka sama baay daal di fi naan maam si naay sa yëkkati jaar si jox ko ni ko màgget fanaanal foofu lu la fi fekk rek maag sama baay la sama baay daal di fi fii ci Cambérène moom kenn ak yàlla na ba asamaan set fajar teel la maam si naay sa ak si nee na ba mu yegsee nag mu ngi ànd ak Baye Baye Elimane Wade ak Baye Sibori Diop ak ak Baye Libaas Jonn ak Baye Alli Won ak góor gu ñuy wax Libaas Fatimata maama Njoon nag dakaa yebal Yoof moom ñëwul ci bisu ñaareel bi bu mu ne cëpp a yegsi ñëw laaj ko ni ko góor gi mag laay mbaa nelaw nga mu ni ko tubaat kàlla mën a yëguma dara damay nelaw ba yeewu rek dégg ganaar yi sab ma xam ni fi mu ne heure julli jot na ma di jóg jàpp daal di julli fii ma toog day sàllaaw jugaatuma ba ni ma fi fekk nee la taal bi commencé di gor di gor di gor taal bi yëpp daal di jóg nag ñu ngi ci jàkk ji rek ci jumaa ji rek lañu ne diggante jumaa ji rek ak kër maam Seydi ak li wër jumaa ji lépp ci lañu nekk di gor bi sama bàyyi fanaanee ñetti fan kàmbareen bàyyi ilimaan Momadou Wade bàyyi libaas Wade mii ñëw fi maam Seydina Issa nag ni ko toogal fii ci Maklaay bàyyi ilimaan Wade daal di ànd ak sama bàyyi fanaan fi juróomi fan ak ñetti fan yi ma wax xanaa muy juróom-ñetti fan waa kay ñu am juróom-ñetti fan bi ñu amee juróom-ñetti fan la maam Seydina Issa jóge ca ndinga la te ànd ak taalibe yi ñu daal ñëw gor nañu ba yegg fi maam di dëkk muy kër gi gii ñu wax kër gu mag foofu lañu indi ñetti néegi ñax néegi ñax yooyu bi ñu ko indee benn néeg ba dañu roñ dund ba ñëw dugal fi la ay soxnaam daal di ñëw ci ci kër googu léegi nag ñi nga xam ne ñooy nit ñu xonq bokk ci tubaab yi bi commandant bi moo leen wax ni leen na ngeen dem ca liggéey ba ca marabu Seyna Isa léegi nag bi nga xamee ni tubaab yi jóg nañu dañoo ñëw fii ci Cambérène ñoo liggéey dëkk bi di buddi garab yi am nañu fi ñetti weer sog fiy jóge soog a dellu ah ginnaaw loolu nag taalibe yi des di di settali ak lay ak defar ah maam Seydina Isaa ñëw ni bàyyi ilimaan wàdd yow kat yow laa def ilimaan ci Cambérène léegi léegi bi mu ko ne yow laa def ilimaan ci Cambérène daal di ne mag laay ñaay yow kat mun naa mu ne ko yaay noddkat dafa am ñoo xam ne nag dañu waxoon ni ilimaan wàdd du fi nekk ilimaan maam Seydina Isaa ni ko maa la fal ilimaan na jiitu nekk ilimaan ji mag lay njaay maa la noddaloo kon na nga nodd ci sama ndigal yéen ñaar ku ci nek sax fal maa la ko fal ah ñoom it ñu def loolu nga xamni mom la leen maam seydi wax ñu nek fi nek fi nek fi nek fi nek fi bu sama bàyyi nodde bay ilma ñew jiite julli ñu nek fi nek ba yag nit ñi ñor par ben par ñaar par ñett di ñew nank nank di ñew nank nank ba yag dal ñew bi gëna bari lool tubarkal sama bay ngi jikkoon dëkk pal ci buntu kër buntu dëkk bi ci kër gi bàyyi racine ngeen dëkkoon foofu la sama bàyyi jëkk a dëkk waaye fii nu nekk nii maam Seydina Isaa moo ko ko may sama bàyyi def kër yi dafa soxla kër mu ni ko màgget mu naa mu ni ko demal commencé fu la neex mu naa mu ni ko ba fu neex nga mu naa mu ni ko waaw nattaluma la nag foo war a yem dama ni la goral fi la neex ba fu la neex nga yem fa nga jël yaa ko moom la commencé ci buntu kër ba sunu ëtt nii la féete sama bàyyi di gor ba fii ma toog nii fi la ëtt bi yam ñu ñu nekk noonu mu nekk nag gor ba wër commencé bale di taal maanaam buntu kër bi féete bëj gànnaar daal boori géej bi waaw ëtt bi ubbeekoo géej ne ëtt bi moo ubbeekoo na le waaw kay foofu la ëtt bi ubbeekoo maam Seydina Isaaka ka may mu defar defar ba mu set mu ni kaa loolu de màgget yaa ko moom ndax yow mu naa mu ni ka fu ma la taxawal rek taxaw nga fa waaw loolu mooy waxtaanu ñëw ñëw kàmbareen gi ah, ah loolu sànq maa ngi waxtaan ak yow ci soppi googu ñu soppi turum góor gi mag laay maam bàyyi laay soppi maam bàyyi laay moo soppi turu mag laay woowu masal njaay la tuddoon la tuddoon maamam lañu ko tudde ca gànjool ci dëkk bu rëy hmm. dégg léegi nag maam bàyyi lay ni moom dafay soppi tur wi tudde ka magum laayeen tudde ka màgget laay ni nañu koy wooye bàyyi laay nañ koy wooye mag laay nañu koy wooye mag lay hmm. loolu maam bàyyi laay ko wax dégg waaye masal la tudd ba keroog bi nga xamee ni maam Seydina Isaa woolu na ko ni ko waa nguur gi kat ñëw nañu fi commandant bi ñëw na di ma laaj soldaar nee mu woo ay mag waxtaan ak ñoom ñenn ñi ba ñu yëgee coow loolu ak siwuñu dañoo daldi di jàdd rek daw <laughs> dañu daal jàdd rek daw sama baay daal di ñëw toog maam Seydina Isaa ni ko màgget mu naa ah, mu ni ko soldaar day lañu ma laaj te yow mii laa wóolu ci nga demal ma France ma doon la ko wax nag mu ni ko man day bàyyi mu naa ah, mu ni ko fépp foo ma yabal rek dinaa fa dem boo ma nee dox ba yegg dem fa su ma amee wata dem fa su ma amul wata foo ma dugal dinaa fa dugg ba yegg fa nga ma yabal li nga ma sant dinaa ko fa def mu ni ko ah kon na góor gi masal mu naa mu ni ko ma woy man nag kon masal njaay ma woye la kon tey sa turu maam ji ñu tudde te sama baay tudde la magum laayeen tudde la màggat mag laay mu naa mu ni ko sa maam jooju ah mel na ni moomu wuy si ndax njóogu wuy si na sama baay njóogu wuy si na sama baay ca yoof mu naa mu ni ko Ah, njuugu di gëm ba jóge fi ba mu fi jóge it dangaa topp ci man kon jërëjëf maa ngi lay sant waaye waajal yow mi yaa war a dem commandant bi nag ginnaaw suba la fii jëm di ñëwaat fii ci dëkk bi bu dellu see seet ndax am naa soldaar bu ma ko jox wala awma soldaar bu ma ko jox bi mu amee ñetti fan it bi dellusi na daal di dem ci maam Sina Isa laaj ko bi mu waxee moom lañu ni leen ma mag laay mu daal ni daw bu gaaw daal di ñëw ñu wuyu maam Sina Isa kii wax français yi tey wax wolof yaa ngi taxaw maam Sina Isa daal di ko ni waxal ma kilifa gii taxaw ni ka ndax soldaar bi bëgg na ko neen sama baay daal di ñoo kët jóg taxaw bu maanaam xool ko ci kaw ba ca suuf ni ko kii day mun a mu ni ko bon soldat daal di wax ak ki nga xam ne mooy làppatoo moo wax maam Seydina Isaa ni ko commandant bi nee na kontaan na ci ki nga ko jox waaye bis sàngam nañu ñëw pour jéem a jël seeni bagage daal di jubal euh, waax ba xam nga booba nit ñi duñ jël avion mm. militaire yi dañ leen di dugal ci saxaar bi ci ci ci bato gi bu ñuy dem ci bato gi lañ leen di dugal waaw ci tàng boobu bi nga xamee ne nag bis bu ñu war a dem jot na nee na rakkam ji ñu xarit caw njaay di jooy rek mook faatu njaay ñuy jooy rek daal ñoom de ñàkk nañu seen càmmiñ lii nag bu demee ba faranse dina fa dee neena bajjan bàjjan xari caw njaay nyai, fatou duga njaay daw dugg wut fa dal wut seeni yifi olof indi dal kay wo jox ko kan ni ka demal nga sango sama bàyyi moma wax de neena bima bi garab bi bo dugal sama loxo ci bir ndox mi neena bima mi astaghfirullah biñu bi bimu garab bi mu wara sango neena bimu ne dafa don def ni loxo mu melni ni nit garab ga ni ko ci suuf garab ga nee na mu génnati waxati loolu bàjjen Faatu Njaay ak bàjjen xarit Caw Njaay ñu daal di ci seeni loxo ni nag waaw kay comme lañu ko indiloon tuuru na ah comme li ñu ko indiloon tuuru na ah kon mag laay mii daal xam naa ni bu bu yaboo rek ñu tàggatoog moom fii rek ci àdduna xam na ñun daal ñàkk noonu suñu càmmiñ lii bàjjen Faatu Njaay moomu ma lay wax moo topp ci xari caw njaay mi ñu mayoon góor gi Amadou Anne ca njóobeen bàyyi si góoru jóob Faatu Njaay nag moom ñu may ko baara yaay baayu baara seen ca Malika njàmme seen la tudd moo doon chef di village mu am fa doom ñuy wax doon chef de village bi hmm. ki mu ca teg mooy ay situ seen hmm. ñetteelu doomam ak bàyyi njàmme hmm. mooy nogay seen mu tofal ca keneen kooku yàlla weddi sama bàyyi ni leen bàyyi leen rek ma dem kon foofu ngeen bokk tamit ak waa Ceeneen boobu ci Malika kon waaw sama bàyyi ni kon nag man daal maa ngi ci xelam mu ne mu ngi bëgg a tiit waaye nag moom daal mu ngi yaakaar yàlla tey gëm li ko bàyyi sëy naa Isaa wax nee na nee na mu daal di ba ñëw boo xam maam sëy naa Isaa ma noppi maam sëy naa Isaa ni ko màgget mu ne mu ni ko ma laa yéen mag laay man mii la yebal fi ma la yebal boo demee fi ma la yebal foo xool jaaxle te bu am pax dugg ca boo gisee tabax bu toj dugg fa màggat lu mu lëndëm lëndëm duggal di nga ma fa fekk mag sama bay màggat mu daa mu ne ko demal ca France nga dellu si fii wax ma lu fa xew màggat mu daa mu ne ko boo yeggee foo xam ne rek war a gaañ sa nga fa ngeen war a jàll mag laay booy jàll mag sama bay noonu xaw kon mag lay demal te jàmm te dellu si ak jàmm ñu wax ma lan moo xew France nee na ñu daal di dugg ci bato nee na bàjjen Fatou Ndiaye ñoom am na nu ñetti fan ci wax dëkkee jooy di jooy rek ndeysaan ba nga xam ne bato gi départ na dem nee na ba ñu demee ñu wàcc leen Marseille ñu leen wàcce Marseille mm. nee na mu daal ñetti lettre bii mu yónnee ko maam Seydina Issa bi mu jox ko bàjjan Faatu Njaay bi ci des mu jox ko ku ñuy wax Dekkaraay Njaay ca Tëngéej bàjjan Dekkaraay Njaay ca Tëngéej kooku Tëngéej la dëkk euh, nee na ñu nekkati fa leetar yi niroowu la comme léegi ñu koy def ay téléphone nee ñu nekk fa nekk fa ba heure ba ñu fa jógee nag jëm ci dëkk ba ñu waxee ji la bindaat ay leetar yónneewaat daal ni maam Seydina Issa bàyyikat mu naa mu ni ko noo ngi nag fan ñu wàcce bu ñu fa jógee ñoo nga jëm salle de ci xeex bi mu ni ko ba muy tontu mu ni ko màgget mu naa ah, mu ni ko boo yeggee ci xeexukaay ba mu naa ah, mu ni ko fu fu lëndam duggal fa ngay fekk sama baay maag sama baay ñu taxaw di la xaar ah sama baay daal day bu gën nag moom wax dëgg yàlla ah nee nañu daal di dem daal di daal di daal di wàcc yóbbu leen ci camp boo xam ci biir àll bi la ne nee ñu nekk fa nekk fa bañ xëy nag daal di leen di jëm dugal ci oto yu mag yooyu nga xam ne mooy ànd sax ba ko mbaal feexukaay bu ñu demee ba ci biir àll bi nag ñu wàccee leen fa daal di daal daal di ñuy xeexi ñu daal di àll bi dinañ fa am lu mat semaine di xeex mu nekk fa di xeex di xeex di xeex di xeex di xeex ma ne la mboolem mi ñu li des matul benn oto bu mag a war a des ak ñetti jibs ñëpp dee nañu ci biir àll bi dañ fa nekkee di xeex nag ba asamaan si xiin ba ñëli gaan nee na mom mu ngi and ak Yaya Diallo ak Idrissa Nder ñoo militaire yi mu àndal ñuy dañoo bu ñuy xex kenn mu tuddi tudd Yaya Diallo kenn ki tudd idi Nder Idrissa Nder Idrissa Nder ni la ñuy taw suuf nak legi ngalaw li jóg xamatuñu fi ñu jëm ñu daal di ànd ñoom ñata rek mel ko takkaloo rek ku ne di téye sa morom ba nga xamni guddi la lool bu guddi bi xat taw te nañoo taw te taw te taw te ñoo dox ñuy dox di dox dox ba yàgg ak si ci benn mel ba pax so boo di mag laa yël daal di ay yooyu militaire yi gaane ka ci suuf nee ni ko foo jëm ko ci pax mii jëm muni ko la waaw mag lay muna muni ko ñi ma ngaa dugg fi muni ko fi lay dugg fi lay fekk bay lay fekk fi bay sayna isa taxaw leen xaar ma ma dugg ci biir te neena bi mu lo ñom dañu tit ba leen bi muy gëdal da fekk ñu tudd nee na ba mu agsee di làmbaatu ndax lëndamaay bu tar bi muy def nii loxoom ci pax nii lay def loxoom ci pax mi di def ci kanamam ginnaawam ba yàgg mu ne teg loxoom ci benn taabul ndeke ci kaw almet la ko teg doon def nii loxoom mu yëngatu mu daal ni ni rek fekk fa ay buti sondeel yu bare bare bare bare yu mag mu daal di taala taal taala di fay fekk xam naa ay waa njóobee na fa nekkoon fekk ñu ñu teg fa mburu beeg sardin yeeg lu ne ñu teg fa mu xool mu xool daal di gis escalier bi jëm ca biti mu daal di yéeg nee na bu mu nee tëll dañu tiit ba nee di ko laaj foo nekkoon mun leen ñëw leen nu dem fa ma nekkoon bàyyi Seynaa Isaa ak ak ak bàyyam Seynaa ma njoon ñoom laa fa fekk Seynaa Limaamu ak Seyda Isa ñoom laa fekk ci biir pax mi kaay leenu dem ñu daal di koy topp ñu daal di wàcc bi ñu wàccee suuf fekk ñaari lal ne fa bee di lalu ñaari nit bii di lalu kenn nit moom mu daal di yéeg ca bële tëdd leen ay ca tëdd tëdd ñu ñu lu ñoom sax seen xal seen xel dalul mu ni leen dama ni ndox maa nga nee ci duus baa ku bëgg a sangu na dem sangu bàyyi laay mi nga xam ne moo jur Seyna Isa moo doomam bu ñuy wax Seyna Isa moo ma yabal fii nee na ñoom ñu gën a jaaxle lool waaye seen fit dafa tiit ba mënuñoo lekk muy waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom ba ñu daal di jóg reer daal di naan ndox sangu nee toog toog toog toog bi asamaan di bëgg a set la ñu daal di jël seen yooyu ñuy gàddu waa daal di koy gàdduwaat daal di aw ci eskale yi daal di génn bi ñu génnee nag sama bàyyi nee na ma daal di taxaw réer lañu nag ci camp bi fi ñu war a dem hmm. léegi réer nañu mu daal ni waaw bàyyi sa inaa isa ah, man de wax dëgg yàlla li ma waxoon ni fu lëndam duggal dugg naa fa waaye fi mu nekk nii nag damaa bëgg a dem ca camp hmm. nee daal ni gees yem ci wenn yoon daal di topp yoon wi hmm. ñu ni ko bul dem Allemagne yi ñooñu mu àndal gili eh, jàlloog Idi Saneer ndi nga foofu nga jëm Allemagne yi fi ne mun leen foofu bàyyi Seydina Isa fa ne ak bàyyi laay ñu daal mu daal ñu daal di koy topp ànd ak moom ànd ak moom ànd ak moom ba yàgg rek ñu daal di seen drapeau bi boo xamee ni ñu ngi xeex rek nee na boo séenee drapeau bu xonq bi rek nga xam ni wàcc wàcc guñu mu ni leen agsi nanu de te drapeau baa nga nee waaye nañ leen continuer dem ndax ndoxum biig bi war nañoo xam ni ku ci nekk xamoo foo jëm bay xeex nee ba ñu agsee nee dañ leen a laaj ñu leen fan ngeen dekkoon ba rey ñu leen nee na jàll ak Idi Saneer laaj caporal bi laaj ko mu ne ko kii day nee na ku tudda bàyyi laay ak Seydina Isa ñoo ñoom daal ñoo ko jiitu fu fu mu fu mu leen rek fu mu jëm rek bu yeggee ñoom la fay fekk ñu ne ko waaw kooku mooy kan kuy bàyyi laay kuy Seydina Isa mu ni leen kooku ab yonent la mu nga dëkk Sénégal ca soowu ba ca géej gi li jàll ak Idy Sendeer ni ko kon ba nu dellu Sénégal ak jàmm ñu daal di toog foofu ñoom dañu war a reposé waat semaine war a delluwaat toog foofu semaine nag ba war a delluwaat ca xeexukaay ba bi ñu demee ba nga xam ni lën lëndëm gi ñëw na ñom ñett nag dañoo dal di rero, dañu rero dal kéro néna mu mur na leen wër wër gisu mu dal di taxaw ci benn place dal di bay sayyida Isa kon nak gindi ma bok ma dellu kamba néna fofu la mus ni war ni cëpp ci kanam mus mo xamni mo moo gën sa léeg gën wenn melol néna Rai, bëti rek ngay gis muy melax mu naan ray ray sama bay ni ah mu daal di que ni ngeew. muus bi daal di ngeew. sama bàyyi ni kon day muus mii ci xelam la ko wax nee na. Mm. soriwul ab dëkk. Mm-hmm. nee ma taxaw rek di xool muus mii di ko bëgg a fital. Mm-hmm. waaye nee na mu daal jaaxle na ndax muus mi soriwul ab dëkk. Mm-hmm. muus mi daal di daw ba mel ku dem kaaneen. daal di dawaat ñëw ba ciy tànk. dal di daw ba ci ca ba ca kanam. mu dawaat ñëw. sama baay waaxu wax dem mu dogale ka sama baay taxaw mu daal di wëlbatiku bi jaamal naa ko ànd ak sama baay naan ñeew ñeew ñeew ba yàgg rek sama baay dafa jékki-jékki ni gees ni timbét ni jàkk ci kaam yi ah. Ah. muus mi kenn dafa xam fu mu dem muus mi day sama baay neen foofu la ko moom daal boobu ne ah kaaba ngi nii wëlbatiku nee neena gisul muus neena mu dal di jóg yili jàllu dellu si na ak idi sa neer ñoom it dañu reeroon wa waye mu jënañu ñu mu gisse wat ci ci bi motax bi nga xamee ni sama bàyyi neena na nañu nak geer nañu ba nga xamni geer bi jeex na tak bañu wara ñibisi nak neena bi ñu ba yexi ba ñu wàcc léegi dañ leen di kenn du génn ba am ñetti fan di soog a wër di dem ci say dëkkandoo seeti say mbokk nee na mu daal di rëcc rek daal di daw ñëw ci maam Seyna Isa nee na bi mu yegsee rek maam Seyna Isa ni kii ku mu doon mu ni ko mën a bàyyi mu naa mu ni ko damaa daw mu ni ko waa noo def ak sa muus ma xaw xaw ngaa def musiba de mu naa mu ni ko amoo yow da nga doon bëgg fital muus ma mu daal ah bàyyi mu ne ah boo fitaloon musuma <laughs> fital sa baay de <laughs> daal di reetaan mu ne ko bon na giñ naa ci laawu kii borom ni ibnu mariama yaa di moom yàlla la tànn doo morom ñi gëm te wóolu xam na kon nag ah, loolu lañu fi jotoon jëm suñu waaju góor bi demoon ak dikkam ca guerre ba <coughs> guerre bi mooy mooy deuxième guerre mondiale bi la loolu bu 39 40 bi la boobu wala 14 18. amoo ay atam. Hmm. waaye moom. tey maanaam at mi xaw ma ko. xam nga ndax guerre bu bu njëkk ay atam moom xaw ma ko waaye mu demee guerre ba ñëw la bàyyi du jóob ñoom di soog a dem guerre ak ak goot awa jóob ñoom ci la ñuy soog a demee ci guerre ñoom ñii ñooy ñi njëkk a dem defe naa ni ñoom daal xam naa guerre bu njëkk ba la xam nga ni mag la. sama doom ji ay doomam a ngi nii te xamuñu sama baay seen yaay xamul sama baay bi mu gaañu kon xam nga loolu mag na loolu yàgg na waaw ah, ba tax na kon nag jërë ngeen jëf seetal kii bi mu nga nee ñu bind ci kaw dafa mel ni def nañ ci ay atam ndax 1884 euh, la gane àdduna

ñeent fukki at yu manqué ñaar bi ñooñu di waxtaan ak moom ak léegi te at mooma nag ci la génn àdduna laa waral xam naa màgg goon ko ba moo mënuloon a wax lañ ko bëggoon laaj jamono boobu mu mel ni sa sa rakk xawma sa mag mantulaay moo doon làppatoo sax di ko mottali di ko jëm dimbali ca kàddu ya ngir mu mën a fàttaliku histoire bi te boobu li magum kër doon wax boobu fekk na bopp bi toj na nee na waaw at mooma timit ci la doon laaj góor gi ilimaan Mamadou Wade ñoom ñooñu le waaye waaw waaye at mu ñu ko doon laaj laay wax ñoo ko bokkale ak weer wa sax waaye euh, loolu nga am ci man nga am leneen loo ñu dolli xanaa ci góor gi dolli ñu waaye